ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam fas yéenee jël benn bind ci diinim ji di ci sukkandikoo ci téere bi nga xam ni mooy minhajul muslim ca mooy yoon bi jullit war a jaar ci ko bindoon di cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah mu tënk ko téere boo xam ni li jullit war a aajowoo ci diinim yépp da ko caa tënk ca la ñu war a gëm li ñu war a tegginoo lu ñu war a jukkowoo ak jaamu yàlla ya ak jëflante ya muy aqaid adab axlaaq ak ibadat ak muamalat bi ñuy mujj ak yéen ñi ngi mujjoon ci wàllu jihaad doonte ni dañoo gisoon ni lañ ca jëloon dana doy ndax la nga xamee ne mooy règle yi aju ca jihad loole jàpp ma ni ñu ëpp ci ñun daañ jëm ba koy dund looloo tax ñu bëggoon ngir gagner temps dem ci la nga xam ne mooy kitaabul bu yoo mooy ci wàllu njaay yi yéen ñu yor seen téere ci page deux cent quatre-vingt-dix-neuf su ma jëmul wala soixante-dix-neuf deux cent quatre-vingt-dix-neuf al al bu yoo mooy deux cent quatre-vingt-dix-neuf deux cent deux cent quatre-vingt-dix-neuf mooy yéer mool bu bees bi yéen ñi desit bu ngeen xoolee jihaad fi mu jeexee am na bunt bu muy wax ci ay musaabaqaat donte ne li nga xam ne jullit ñépp koy ittewoo bal képp ku nekk ci kaw suuf dana koy ittewoo muy jënd ak jaay moo taxoon ñu bëggoon a dal ci loolu directement mooy bunt bi jàngale jënd ak jaay su dee bokk nañ ko gis kon day wax la bunt la boo xam ni day jàngale ci xukmul bay wa xikmatuhu arkaanuhu ila axiri bu dee da nga yor sa téere mu ne xukmul bay lan mooy attey njaay ay jënd ak njaay ci dundug julit al bayu mashruun bil kitaab al aziz li qawl qaala allahu taala wa axalla allahu al baya wa xarama riba mu ne bu ñu xoolee jënd ak jaay lu ñu yoonal la ci téereb yàlla bi suñu boroom nee na moo daganal lépp luy jënd ak njaay araamal la nga xam ne mooy riba mi ngi noonu wa bi sunnati alqawliya wal amaliya ma an tegtalu jullit mën naa jënd mën naa jaay dañ koy fekk ci sunna ya yonent bi wax ak sunna ya yonent bi jëfe yépp faqad baa nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam washtara yonent bi ci dundam gis nañ ne jënd na jaay na bal loolu moo nekkoon métiem bu mag avant ko yàlla di def muy jiite jihaad waaye ci commerce ca la màgge yéen ñépp xam ngeen ne bi muy am avant muy am ñaar fukk ak juróom la doon jël njëgu Khadija di ko yóbbu ca Sham su demee jaay jëndaat ñëw jaay biir Makka loolee kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëfe na ko te it bokk na li gën a jege doomu aadama yi ki gën a xam doomu aadama mooy commerçant ni noonu loolu moo taxoon ba daanaka boo demoon cab koñ soo demoon ca borom bitig ba laaj ko waa koñ ba yépp mën na la wax seen jukk ña fa baax ak ña fa bon ak ña fa jub ak ña fa jubadeeg ñépp daanaka mën na leen koo wax commerçant bi nga xam ni day xëy di dajeeg lu jege téeméeri nit façon nit bu nekk lay dajeel loolu la muy xam ci nature doomu aadama jafe ne keneen xam ko moo tax yàlla tànnaloon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu gisee Abu Bakarin Saddiq radiyallahu anhu moom it commerçant la woon mu ngi noonu ak Ousmane ak lu bëri ci magi sahaaba yi kon yonent bi jënd na jaay na wa qaala laa yabi xaadirun li baat daana waxit ey yow mi nekk ci dëkk bi ab kaw kaw bu jógee fële ak marchandise am bu ko gàttandu jël ko di ko ko jaayal bàyyi ko mu dem ca marché ba yàlla wërsëgal nit ñi ca la ca des ñu noonu ndax moom bu ñëwee comme dafa war a dellu prix ba mu fa fekk da koy jaay amaa nag boo ko teeroo nangu marchandise ma ca moom mën naa indi xat-xat ci doomu aadama yi wa qaala albayiaani bilxiyaar maa lam yatafaraqa daana waxit ñaar ñiy jaayante ku nekk ci ñoom am na droit tànn dellu gannaaw fii teqalee ku ñu seen diggante dama la jaay téere bi waxaale nañ ba juboo ba nga yëkkati fay tànk teqalikooguñu ki jaayoon téere bi am na droit ne hey man daal jaayutu mosab téere ki jëndoon am na droit ne man daal delloo ma sama xaalis jëndatuma amaa nag buñ demee ba teqali ko bokku na dem su boobaa da ngay gis ne amatuñu àq ci xàcc loolu xanaa lu dul dañ koo chartoo woon ca début ba comme ni mu nar a ñëwee ci kanam kon buñ la doon laaj lan mooy atte njaay ci lislaam da nga naan njaay day lu ñu yoonal la ci alquran ak sunna tegtal ba mooy yonent bi jënd na yonent bi jaay na ñaareelu bind bi mooy xikmatuhu ana ban xikma lañ gis lu tax suñu borom daganal jullit mu mën a jënd mën a jaay alxikmatu fi mashruiyati albayi la nga xam ne mooy am njàng ak xereñe gañ mën a gis ci yoonal gi ñu yoonal jënd ak jaay hiya bulugu l insaani xaajatahu mimma fi yaddi axiihi bi gayri xarajin wala madarra mooy nit ki daa di mën a jot aajoom ca la nga xam ne mbokkam julitam moo ko moom ci loo xam ne du ànd ak benn lor te ji sa mbokkum julit mën naa yor li di xar wala fas wala mu yor ak këram wala toolam xemmem nga ko doo ñëw ci moom na ko may ma ko waaye nag am nga droit dem ci moom na ko jaay ma ko wala nga yëg da koy jaay nga dem jënd ko ca bu boobaa it la nga koy jële ci moom doo ci am benn xat-xat ama bu doon da nga ko ko ñaan wala yu demee noonu loolu day indi xat-xat kon loolu moo tax ba suñu boroom subhanahu wa taala yoonal la nga xam ni moom mooy jënd ak jaay mbokk dañuy gis ne jënd ak jaay àdduna yépp a koy def allahuma boo demee ci ñi nga xam ne tënkuwuñ ci diini ñoom lañ cay xool rek mooy profit bañ cay am mooy lañ cay am ci intérêt amma bu dee yow jullit islaam da lay xamal ne jënd ak jaay jaamu yàlla la da nga koo war a tërale ni ko yàlla gërëme soo ko defee am ci ngërëmal yàlla soo ko jàddee même boo ci amee bénéfice da nga ciy am merum yàlla looloo tax mu ne la arkaanul bayi xamsa lii de ponk jënd ak jaay juróom la li nge noonu wa hiya awalan albaa islaam day jëkk a xool kii jaay mooy kan wala budda an yakuna malikan li ma yabiyo mooy fokk mu moom li mu jaay koo xam ne daa dem tey jël otab jaambur wala xarum jaambur ñëw di la ko jaay xaraam na ci yow nga jënd ko comme moom ni mu xaraamee nga mu koy jaay gannaaw ba nga yégée ne kii li muy jaay moomu ko muy benn aw mazunan lahu fi bay'ihi walla moom kat moomu ko ca kenn joxu ko ndigal mu jaay ko muy wane ne bu dee dañ koo jox ndigal mu jóge ca ka moom soo ko jëndee moog jënd ko ca ka ko moom benn la loolu moom mooy mbir bi rachidan gayra safia mooy fokk mu doon koo xam ne ni ku jubla ànd ak xelam bañ a doon ko doye di njaayum dof islam du ko nangu mi ngi noonu njëndum dof islam du ko nangu lu dul ña nga xam ni ñooy ay kilifaam ñoo saxal loolu mi ngi noonu ñoo saxal loolu kon awalan ci wàllu jënd ak jaay dañuy jëkk a xool kiy jaay mooy kan mi ngi noonu naka moom wala ñu jox ko ndigal te it naan da xelam ñaaril bi mooy almushtari waajay jóg di jënd wala budda an yakuna jaiza tasarruf fokk mu nekk koo xam ne sharia dana wéyal ak jëflenteem bi an la yakuna safiha mooy mu bañ a doon ku doye di ñàkk xelam wala sabiyan lam yuzanu lahu du nekkit xale boo xam ne ay kilifam joxuñu ko ndigal te mooy xale lépp lu muy jënd te loolee doon loo xam ne ni lu am valeur la islam du ko nangu lu dul ay kilifam ñoo ca ànd am maa nag bu dee jënd la méngoo moom loolu islam du ci wax dara dem jënd ay tàngal ak ay kenn xamul yooyu waaye bu dee lu am valeur la fokk ay kilifaam ñoom ñoo koy saxal ci loolu ñetteel bi al mabi' al musamman mooy ñu xool nag li ñuy jaay lu mu doon wala budda min an yakuna mubahan tahiran maqduran ala taslimihi lañuy jaay ci lislaam fokk mu doon lu dagan sàngara kenn du ko jaay mbaam xuux kenn du ko jaay fokk mu doon loo xam ne taahir la dafa doon loo xam ne ni lu lab la la nga xam ne ay sawak ay yu deme noonu wala loo xam ne ni am midd la boo xam ne dañ ko war a jël rek suul ko loolee kenn du ko wëlbatiw di ko nekk di ko jaay fokk mu nekkit am kattan ci mën koo joxe waa ji amoon façon fasu rëcc réer dem kenn amul droit ñëw di jëndanteeg moom fas woowee lu tax mooy mënu la koo jox oto bu réer rek yu deme noonu fokk waa ji am kattan ci mën a joxe la muy jaay bu dul looloo islam du nangu njaay moomee maaluman ladaya almushtari walaw bi wasfihi la ñuy jaayit ku koy jënd fokk mu xam ko même bu dee ci tegtal lay doon mooy tey am naa am xar kat xar maa nga Saalum waaye xar ma am na at am kuy la nii la mel naa la mel ngeen waxante ci loolu mën nañ jaayante ci loolu am naa benn oto oto bi kat nii la mel naa la mel ngeen waxante ci loolu bu ngeen jëndantee jaayante tànk la nga waxoon ci melokaan looloo am njaay moom lislaam da koy da koy wéyal kon lislaam dana nangu ñu jaay ci la nga xam ne mooy melal gannaaw ba mooy li nga xam ne nii mooy ñeenteel bi mooy siixatul aqd wax dañuy wax ngir fas njaay ma wa hiya al ijab wal qabul ca mooy lii di waral mbir mi ca koy jaay ak ka nga xam ne day nangu lañ ko jaay loole mu nekk bil qawlu ci wax nahwa bi'ni kaza fa yaqulu al baa'i'u bi'tuka mi ngi mel ne waa ji ne ko jaay ma sa téere bi mu ne ko jaay naa la ko aw bil fi'l njaayit mën naa nekk ci jëf ka an yaqul bi'ni sawban masalan fa yunaawiluhu iyaahu waa ji nga xam ne dafa ñëw fekk nga teg ay yére jaay ma xamisa bi jox na la xaalis nga jël jox ko kon loolu mooy li lislaam tëral imma ci wax wala imma ci jëflante amma bi ci mujjoon mooy ataraadi njaay fokk ñaari parti yépp gërëm njaay mi waaye bu dee kenn nag dañ koo forcé islam du nangu loolu suñ borom da koy wax mu naan laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil illa an takunu tijaratan an taradin minkum mi ngi noonu kon suñu borom subhanahu wa taala mu ne bu leen lekkante seen alal ci neen toujours dafa nekk tijaara njaayante boo xam ne yéen ñëpp yéen a ko gërëm moo tax mu ne fala yasixu bay'un biduni rida tarafayni am njaay du wér lu dul kay jënd daa gërëm la muy jaay kay jaayit daa gërëm la muy jënd waaye boo ñoon force ko ne ko hey jaay ma sa kër gi par force jaay ma sa oto bi par force islam du nangu façon njaayin boobee mukk moo tax yonent bi alayhi wa alayhi salatu wasalaam ne innama al bayu an tarad njaay daal buñ koy wax mi ngi aju ci lañ gërëmante su ko defee kii jël ab marchandise am lu mu ko mën a jaayee su dee ne kay moom lañ ko fay gërëm na ko loolee moom islam du ci wax dara ka nga xam ne nag mooy jëndit lam jënd jaral na ko loolee l'islam du ca wax dara mi ngi noonu xanaa lu dul loo xam ne dafa nar a ñëw ci kanam mooy waa ji bi muy jënd xamul wala bi muy jaay xamul dañ ko nax nax boo xam ne jéggi na dayo su boobaa nax googee islaam du ci da ciy dellu gannaaw lii mbokk kon moom mooy lii di ponk yu aju ci njaay ak xikma bi ci nekk allahuma lu dul su doon te ni ne pour nit ñi bañ a gaaw a fàtte ku ci am lenn loo xam ne ñàkk na ko leer ci li mu doon wax wala laaj bu mu ci doon laaj mënees na koo jéem a tontu bala ñoo jàll ci leneen incha allah su dee am na non non su dee ne amul it incha allah kon ñu continuer ci sunu bind bi mu ne almadatu saaniya lii di ñaareelu bind bi nga mën a jël ci njaay mooy fii ma yasixu min ashuruuti fi lbay wa ma la yasix ana yan charte ñoom ñooy wér ci am njaay ak yan charte ñoo dul wér ci am njaay ma yasixu min ashurut yasixu ishtiraatu wasfi fi lbayi dana dagan ñu chartoo ñu melal la nga xam ne dañ koy jaay fa in wujida wujida al wasf mashrut saxa al bayu wa illa batala mooy islam dana nangu ñaar ñi ngi jaayante dara jur la oto la ab dund la muy pepp ak yu deme noonu ngeen waxaale ci ni saaku dugub laa lay jaay dugub saaku mboq laa lay jaay saaku bi cent kilo la ila axiri ngeen waxaale bu juboo ci loolu heure boo xamee ni nii marchandisme ñëw na dëppoog nañ ko waxe woon njaay moomee day sax su dee dëppoowul ak nañ ko waxe woon islam day neenal njaay moomee kay jënd moom la ñuy xool ndax da koy saxal wala da koy delloo loolee kon mooy lu jëkk wa zalika ka an yashtarita al mushtarin fi kitabin an yakuna waraq waraqatu asfar mu joxe ci benn misaal mu ne waa ji dafa ñëw ne la dama bëggoon nga jaay ma téere waaye nag dama bëgg page ya doon page yu jaune comme téere yi ngeen yor mi ngi noonu aw fi manzilin an yakuna baabuhu min hadid masalan wala ah kër gi nga may nar a jox kat bunt ba day doon buntu weñ masalan loole kama yasuhu ishtiraatu manfaatin xaasa kon loolu muy lu jëkk mooy charte ci melokaan islam day nangu loolu beneen bi mooy kama yasuhu ishtiraatu manfaatin xaasatin mooy ngay jaay mbir waaye ki ngay jaayanteel nga ne ko ah danaa ko jëfandikoo nag diir sangam ka ishtiraati baa'i daaba daabati alwusula alayha ila mahallin kaza mi ngi mel ne tey nga doon jaay benn waay benn fas wala oto ci li nit ñi gën a xam dama la jaay oto bi waaye nag oto bi kat masalan Saint-Louis ngeen ko jaayante Dakar laa la koy joxe fokk ma war ko ba Dakar loolee da ngay gis loolu lu mën a nekk la ki di jaabir jaayante nag yonent bi alei salatu wasalaam benn giléem ca tukki buñ tukki woon mu ne ko waaye nag dama ciy war ba yegg madina ñu ngi noonu aw ba i daar ñu ngi noonu aw ba i daar sukna biha shahran masalan wala boog waa ji nga xam ne day jaay kër mu ne kim koy jaay léegi nag su ma la ko jaayee it danaa continuer dëkk ci kër gi un mois loole islam dana ko nangu na doon un mois la six mois la islam dana nangu ngeen jaayante kër gi ba pare chartoo nag borom kër gi bala la ko jox diir sàngam lay doon li nga noonu aw yashtaritu mushtarin sawban xiyaatatuhu wala boog waa ji ñëwoon ci benn borom magasin da ko ah dama bëggoon a jënd tissu tel waaye nag yaa koy ñëw de ñu ngi noonu yaa koy ñëw de loolu islam dana ko nangu aw mushtarin xataban kasruhu wala boo ki ñëw jënd matt jënd cent kilo matt ne borom matt bi nag ah yaa ma koy xaral de yaa koy xar ñu noonu loolu da ngay gis ni islam dana nangu loolu moo tax mu ne is ishtarata jabirun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xumlaana bairihi lazi baahu ani rasul sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nañu jaabir ba muy jaay yonentam ba gileemam nga ci tukki ba daa chartoog moom ne ko dama koy war ba madina te loolu jaabir dafa nekk ak yonent bi ci benn tukki giléemam gi sonal ko lool ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di ñëw ñaanal ko dóor giléem gi rek giléem gi mel ne fasu naaru góor yonent da ko waaw teg teg ma jaay sa giléem gi mu ne ko d'accord waxante dinaa la ko jaay waaye nag dama koy war ba madina yonent bi na ko d'accord biñ ñëwee Madina jaabir indi giléem gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël prix ba mu ko waxoon daal di koy boole giléem gi yëpp jox ko mayaat ko ko sallallahu alayhi wasallam doonte ne ne jàngal na ci nit ñi ne nit ki mën ngaa jaay dara waaye kan koy jaay ngeen chartoo ni danaa ko jëfandikoo ci diir sangam ak sangam ñu ngi noonu loolu kon dana wér léegi nag maa la yasixu min ashurut ana yan charte la nit ñi di jëflante ci lislaam du ko nangu bokk na ca aljamu bayna chartayni fi bayin waxid mooy nga indi ñaari charte teg ko ci benn njaay ka an yashtarita mushtaril xatabi kasaruhu wa xamluhu mooy mi ngi mel ne waa ji ñëwoon ci benn jaay ko tomate ko jaay ma cent kilomètres waaye matt mi yaa koy xar yaa koy yenu yóbbul ma ko kër ga li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu salafun wa bay'un wala chartaani fi bay'in yonent bi alayhi salaam da doon wax du dagan la nga xam ne mooy leble gu ànd ak njaay ñu noonu leble gu ànd ak njaay ca mooy kaay ma lebal la nangam waaye bala ma la ko lebal da ngay jënd ci man ña nangam wala jënd ci man nangam bala ma la ko jaay da ngay leb ci man nangam mu ne loolu kenn du ko boole doon na nag nu mu gën a grave su doon tene ni da nga koo leb ba pare wëlbati ko jaay ko ko loolu la ñu tuddee bay ul ayna nga xam ne bari na lool usurier yi daan ko def fii ci Dakar te mooy masalan ñëw leb waa ji benn frigo ma nga ko leb ci presque trois cent mille frigo bi génnul magasin bi nga jaayaat ko ko ci cent mille wala cent cinquante mille loolu ci bakkar yi gën a bon la bokk loolu du dagan yonent bi alei salatu wasalaam yi daana wax ne ñaani charte kenn du ko teg ci benn njaay bu dee benn charte dana dagan comme ni ñu ko jàngee ci kaw masalan jaay ma matt mi yaa ma koy livrer sama kër jaay ma matt mi yaa ma koy xaral loolu benn charte la amma boo indee ñaari charte su boobaa dañ naan loolu kenn du ko def ñaareel bi mooy an yashtarita ma yaxlu bi aslil bay mooy nga charte loo xam ne nii day dàq cosaanu njaay ka an yashtarita baa'iu daaba an la yabi'aha al mushtari mi ngi mel ne tey jii benn waay ñëw di jaay nit ki benn daaba oto la fas la lu mën a doon waaye na ko nag pour ma jaay la ko charte bi mooy yow doo ko jaay kenn islam du nangu loolu ndax boo ko ko jaayee moo ko moom à cent pour cent bu ko neexee maye ko bu ko neexee jaay ko islam du nangu nga naan ko doo ko jaay kenn aw an la yabiaha zaydan aw yahabaha omaran masalan wala mu ne ko ah mën naa la koo jaay de bu la neexee jaay ko nag waaye doo ko jaay diw wala doo ko may diw islam du nangu loolu aw yashtarit alayhi an yuqridahu aw yabi'uhu shay'a wala waa ji ñëw di jënd ci yow nga ne ko ah bala ma la koo jaay de da nga may lebal temps wala bala ma koo jaay da nga may nangoo jaay nangam islam jaay ma sa oto bi d'accord mun naa la ko jaay bi charte mooy nga jaay ma sa kër gi masalan islam du nangu loolu li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yaxillu salafun wa bay comme niñ ko jànge woon ci kaw lii di leble gu ànd ak njaay moom la sunu mag ñi di wax ci marché gagale loole islam du ko nangu wala chartaani fi bay ñaari charte nga teg ko ci benn njaay islam du nangu loolu wala yabiu ma laysa indak nit ki it du jaay loo xam ne nekkul ci moom loo xam ne nii amoo ko nga nekk di ko jaay islam du nangu loolu lu dul ni dana am lu ñuy jàng ci kanam lu ñuy tuddee as salaf mooy loo xam ne amoo ko ay wóor na la ne waxtu sàngam da nga ko am ngeen dëppoo ci jëndante ko bu boobaa nga delloo nga jaay ko comme baykat bi charto bu ñu demee bu mois de octobre ma jox la saaku dugub ngeen waxante ko léegi nii amma ki nga xam ne nag tey jii dañ ñëwoon moom amul fas amanul fas ba pare wax ak benn waaye jaay ko fas ba pare di wëri am fas islam du nangu loolu mi ngi noonu amma ñetti ñetteelu chart achartu albaatil lazi yasixu maahu al aqd am na chart yoo xam ne dafa neen doonte ne pas-pasu njaay mi moom dina wér waaye chart bi dañ koy sànni wa yabtulu huwa wa zalika ka ka an yashtarita an la yaxsira inda bayil mushtari mooy waa ji ngay jaay dara ne ko nag yow it boo demee doo ko jaay mukk ci perte ngir ragal prix njaay mi daanu ki nga xam ne jaay nga ko ba pare amul leneen looy chartoo ak moom loolee da ngay gis ne même bu dee wax nañ ko it njaay ba moom baax na charte ba moom dañ koy teggi aw an yashtarita baa'iul abdi an an al walaa lahu wala waa ji dem di jaay ab jaam ba pare nag ne lii di féeteeg jaam gi ci man lay dellu ba ko xam ngeen jaam ci ka moom moom moo koy féetewoo bu jaam bi dee woon bàyyiwul alal bàyyi bàyyi alal même buñ ko goreelee ci amul ku ko don waa ja nga xam ne moo ko moomoon goreel ko kooku mooy féetewoo mooy jël alalam amma ki jaay moom kooku pare na ci jaam bi amma nag ne da ngay jaay jaam ba pare féetewoo ko islam du danga loolu fa chartun fi misli hazayn batil wal bayu sahih mu ne charte yi ku ko wax ci njaay it dañ naan loolu moom neen la amma jëmmi njaay ma moom dañ naan nekk na loo xam ne ni lu wér la li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man ishtarata shartan laysa fi kitaabillahi fa huwa batil koo xam ne daa teg charte boo xam ne nekkul ci téereb yàlla bi loolu neen la wa in kaane miata chart même bu doon téeméeri charte it loolee da ngay gis ne day nekk ak neen bu ñu delloo ci almaddatu salisa te mooy lii di ñetteelu bunt bi ci njaay mooy fii xukmul xiyaari fil bay lan mooy attey nit ñi ku nekk am délai booy seet ndax da nga wéyal njaay mi am déet moom la ñuy wax tànnloo di xiyaar shuri al xiyaaru fil bayi fi iddati masail wa hiya li nga xam ne moom mooy tànn ab diir booy xool essayer la nga yor cim njaay dana am ci ay mbir ba ca jëkk mooy maadaama albaa'iu wal mushtari fi lmajlis qabla an yatafarraqa mooy bu dee ne kay jaay ak kiy jënd yépp ñi ngi ci benn place avant ñuy teqali ko fa li kullin minhuma alxiyaaru fi imdaa'i albay'i aw fasxihi képp ci ñoom am na droit wéyal njaay mi walla tas njaay ma daal di koy teggi mooy tànk teqalikoowu leen tànk teqalikoowu leen waaye bu dee ne da ngeen a jaayante yow génn nga magasin bi walla pharmacie ba walla tool ba fa ngeen jaayante woon ba ku ne dem sa yoon su boobaa soo ñëwee bëgg a bëgg a xàcc day nekk beneen mbir li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam albayaani bil xiyaar maa lam yatafarraqa ñaar ñiy jaayante ku nekk am nga droit tànn wéyal wala dellu gannaaw fii ak teqali ko wuñu comme ni ñu ko jànge woon ci gannaaw yonent bi nag daa di ne fa in sadaqa wa bayyana buurika lahuma fi bay'ihima su dee na ñoom ñaar ñiy jëndante ñëpp ku nekk wax na dëgg ku nekk leeral na dëgg-dëggi la nga xam ne mooy moroomam ca lam koy jënd ak lam koy jaaye yàlla day barkeel seen njaay yàlla day barkeel seen njaay waaye wa in katama wa kazaba muhikat barakatu bay'ihima amma nag bu dee dañoo nëbb ayib ya nekk ca njaay ma wala ayib ya nekk ca lañ koy jënde ñu fenente seen biir lan ca mën a am lu muy bëri bëri yàlla day dindi barke ba bu dee ka jaay moo nax lam ca amee du barkeel bu dee ka jënd moo nax lam jënd du barkeel loolu it di mbir boo xam ni képp kuy dugg ci commerce waroon na koo xam ca mbokk jullit li barkeel mënul yem ak lu barkeelul ak lum bëri bëri suñ borom mu ne la yastawi alxabiisu la tastawi alxabiisu wa tayib la yastawi alxabiisu wa tayib walaw ajabaka kasratul xabiis li nga xam ne mooy lu bon du yem ak lu teey ak lu bon la lu mu bëri bëri moo tax léeg-léeg ñu daan gis fii ay commerçant yu amaalal yu kawe magasin yu kawe wëlbatiku daanu daanu yu metti dara waralu ko lu dul yàlla deful barke ci seenum njaay mi ngi noonu ñaareel bi ida shtarata ahadu lbaa'iina muddatan muayyana lilxiyaar fa fattafaqa ala zalik mooy tey jii dañuy jëndante masalan ab oto la ñuy jëndante waa ji ne ko oto bi day danaa ko jël waaye nag danaa ko essayer une semaine kaka ka jaay d'accord ak moom ca loolo semaine bi fii ak jeexul ka jëndoon oto ba am na droit ñëw ne ko ah la ma ci yaakaaroon gisuma ko delloo ma sama xaalis mi ngi noonu fa huma izan bil xiyaar xatta tanqadiya al mudda su boobaa ñoom ñaar ñépp ñu ngi nekk ci tànn fii ak idda ba jeexul mooy lañ sartante woon nekkul doon loo xam ne ni lu jeex la mi ngi noonu su suma yamdil bayu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al muslimuuna ala shurutihim waaye bu dele ba jeexee njaay ma moom tabbi na bu dele ba jeexee njaay ma tabbi na ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax ne jullit ñi day ñi ngi tënku ci la nga xam ne mooy seeni charte maadaama chartoo ngeen ko te charte bi l'islam bañu ko loolee yéen ñaar ñépp da ngeen ko war a respecté amal beneen xiyaar bi nit ki am droit xacc mooy ida gabana ahaduhuma al axar gabanan fahisha su dee ni dafa nax kenn ca ñoom naxin boo xam ne bu jéggi dayoo la bi an balagal gabanu sulusa fa aksar bu dee ne nax ga dafa dem ba nekk ceeru lam waroon a jar wala lu ko ëpp bi an baahu ma yusaawi ashra bi xamsati ashra aw ishrina masalan mu mu fekk loo xam ne day jar fukk mu jaayee ko ko fukk ak juróom wala ñaar fukk ku mel noonu fa inna lil mushtari al fasaxa aw al axza bil qaymati al ma'luma su boobaa ka nga xam ne daa jëndoon am na droit dindi njaay ma xàcc ko wala mu jël lam jënd ci prix bu normal te jii buñ ne woon benn masalan fii su mbasin gi nii ñu ne dix mille lay jar masalan ñu ne mètre bi dix mille lay jar benn waay jóge fa la xamul ñoo mètre bi mbasin bi ñaata mu ne ko quinze mille jaay ko ko quinze mille ñu ngi noonu wala mu jaay ko ko vingt mille kooku bu demee ay mbokkam ne ko hey yow dañu laa nax lii jarul loolu maadaama gis nañu nax gi dem na ba yegg presque ca ceer wala lu tolloog la mu waroon a jar njaay moomu islam da koy xàcc njaay moomu islam da koy xàcc te loolu boo demee bari na loolu suñu doom yi mooy li ñuy tuddee ay pakoti dañuy gis masalan ay montre montre yoo xam ne prix normal am ay cent mille lay jar ay cent cinquante mille am na nag ay pakoti yu gars yi defar yoo xam ne mille francs mille cinq cent lay jar léegi la ñuy dajeeg touriste yi jaay leen ko jaay leen ko ay quatre-vingt mille kooku moom jàpp ne am na occasion ndax cent mille cent quelque mille lay jar fekk lim jënd mille cinq cent lay jar am na ko ma mës a dégg muy nettali ay benn xale dafa ñëw mu ne eh boy wàcc naa ñu ne ko lu xew ay baa ay baa yoo xam ne bu dee ne marque bi normal bi baa yi vingt mille lay jar gars yi nag am contrefaçon boo xam ne six cent lay jar mu ne dafa dajeeg ay tubaab jaay leen ko quinze mille mu ne wàcc naa xoolal lu jar six cent franc nga jaay ko quinze mille franc gis ngeen su ko defee mbokk yooyu moom da ngay gis ne même que ko jënd bu dee ba mu koy jënd d'accord na waaye gannaaw ba mu dem xam ne kii kat dañ koo nax-nax bu jéggi dayoo am na droit dem ca kaka jëndante woon moom xàcc ak moom donte ne teqali koo nañu te bu booba islam day ànd ak moom ci loolu loolu tax ba mu ni li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam lillazi kaana yuxbanu fi lsharai li dafi aqlihi man baayata fa qul laa xilaaba yonent bi alei salaam dafa moon kenn ci ay sahabaam moom xel mi dafa xawoon a manqué tuuti xamul ci jënd ak jaay lu bari day dem gaa yi di ko nax rek yonent bi ne ko xam nga looy def képp koo jëndanteel ne ko ah ndax amul de ay bu ma demee sama mbokk yi ne ma danga maa nax danaa ko dellu siwaat gis ngeen danaa ko danga maa nax dana ko dellu siwaat loolu ca la borom xam-xam yi dëkk masala boo xam ne ni ñoom it dañuy gis ne képp ku mën a doon ci ñàkk a xam ñu nax ko ci prix bu jéggi dayoo su boobaa am na dañ naan ko dellool njaay mi amma bu dee loo xam ne nii xëy na dix mille lay jar ñu jaay ko onze mille wala yu demee noonu loolee moom da ngay gis ne prix marché la boo xam ne amul fu mu tënku waaye buy jéggee dayoo jéggi na dayoo ay la xadia ca mooy laa xilaaba fa innahu mata zahara annahu rubina rajaa ala man gabanahu bi raddi zaidi ilayhi aw bi fasxil bayi képp koo xam ne nii dem na ba ñu nax ko nax goo xam ne jéggi na dayoo am na droit dellu ci kam ko jënd woon mu delloo ko xaalisam valeur ba mu ko naxe wala mu delloo ko marchandise am jël la nga xamee ne nii moom mooy xaalisam waaw yaakaar na waaw man man nañu man nañu doyloo loolu incha allah ba yàlla dajale waat ñi fii ñaanu suñu borom yàlla na yàlla barkeel suñu njaay ca musal ñu ci bépp naxante ci biir julit ñi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain génnaloo la nga xam ne mooy ay sarax mbokk doomu aadama bi ñu koy génnaloo ay sarax islam xamul loolu sarax dafa war a doon loo xam ni nit ki da ko war a def te yàlla rek a tax mu xool lay jëriñ miskin bi mu def ko amma li ñu xam ci ñi def ay ñaan da ngay sarxe ay saabu da ngay sarxe ay këyit ay sondeel da ngay rey xar mu ñuul da ngay rey nag da ngay rey nangam lan ban kumpa la ñu xam ba xam ne kii aajoom bi sarax tel moo koy régler loolee mbokk islam xamul loolu ci règle générale dama dem bu amee aajo ci boroomam man ngaa julli ay rakka ñaan yàlla man ngaa woor ñaan yàlla man ngaa génn sarax ñaan yàlla waaye nag du doon sarax boo xam ne dañ la koy tënkal ne aajo bi sarax tel moo méngoo ak moom pour nga mën ca réussir loolee mbokk islam du nangu loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ah bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw bay omaale sa inda mooy jaay loo xam ne nekkul ci yow waaw ala kulli xaal bu dee ne marchandise mi yow yaa ko moom mi ngi nekk di ñëw nga xam ni waa ji ñëw di jënd si nga xamal ko loolu lii ma lay jaay am naa ko mi ngi ñëw ngeen d'accord ci loolu mooy li ñu doon wax sànq ci melokaan yi ñu doon wax dañu nangu loolu amma marchandise boo xam ne amoo ko loolee doo nekk di ko jaayante client bi di jël xaalisam ci yow amoo ko am nga droit waxaale ak moom heure bi muy war a ñëw di fay diggante bi yow nga dem lijjanti marchandise mi daal di koy jël amma waxaale ak moom ba pare jël def sa poos doo nga dem di wëri marchandise mi te marchandise moom amuloo ko loolee ku nekk da ko war a moytu moom la moo tax islam di wax naan bul jaay loo xam ne nekkul ci yow loolu daal mi ngi noonu mi ngi mel ne rek gars yi nekk courtier yi nekk ci marché bi waa ji am na droit ñëw ne la frigo tel laa bëgg ngeen d'accord mën naa la ko jaay ngeen waxante ba d'accord ci prix waaye nag da ngay dem lijjanti frigo bi ba ñëw mu doog la fay waaye du la fay nga dugal sa poche su pare dem di lijjanti frigo loolu mo mooy différence bi ci nekk wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam la nga xam ne mooy ak weccoo ci marchandise lan cay tere mooy mo mooy monnaie or ak xaalis ak lu taxaw place am ci dollar yàq yu ne ma noonu walla ab dund ceeb ak ceeb xorom ak xorom yu deme noonu amma bu dee matériel matériel dara nekkul ñu ëppalente ci mi ngi noonu bu dee ci matériel yi dara nekkul ñu ëppalente ci nit ki mën ngaa ñëw jox ko ñaari portable mu jox la benn portable mën ko jox ñaari oto mu jox la ñaari oto loolee kon da ngay gis ni la ñuy bañ ci riba daal mooy lu aju ca monnaie ak lu aju ca la nga xam ne mooy dund yi ñuy lekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw li li mbokk mi waxoon léegi mooy maanaam fekkee ne ba misaal ma maanaam fekkee ne man dama yor ay téere nekk ci juróomi téere yow nga ñëw bëgg fukki téere léegi ñu waxaale ko jubóo ci fukki téere par man ma man ma jox man ma def jël cinq ñëw nga nga ñëw ma ñëbal la bi ah yow bi bi ñuy waxaale ma yow fukk nga bëgg waaye man cinq laa def
waaw xam naa li mu wax xam naa ko bu baax dama ne su boobaa yow li ngay wax waa ji mooy demal ba heure sàngam nga ñëw fay moo dina ne yow cinq nga am yaa ngi wëri la ngay wëri boo ko gisul nag fekk lekk jël nga xaalisub jàmbur loolu moo tax ba yow da ngay waxanteeg moom waxtu woo xam ne bu ñëwee jël ay téereem indaale xaalisam man ngeen d'accord ci prix danaa la ko jaay dix téere yi cent mille la waaye nag heure bu ñëwee ba nga jox ko ay téereem mu doog a fay li ñuy bañ mooy ngeen jëflante mu fay la nga def sa poste doo ko dem nag di wëri mais man ngeen d'accord ci prix ba fixé prix bi soo indee marchandise bi mu fay nga jox ko marchandise am loolu da islam du wax ci loolu dara mi ngi noonu wallahu alam naam naam yaakaar naa ah naam leer nga ko commencer ci li juróom laa am juróom ñoo koy wut bu ma ko amee boo ñëwee fay ñëpp boo ko amul nag boo ñëwee dem sa xaalis mu d'accord
su boobaa moom da ngay gis ne moom ci boppam moo la jox ndigal ci yow nga utali ko ay téere mooy xamal nga ko ne lii óoma ko dama koy uti mu d'accord ak yow ci loolu njaay moomee nekkul njaay muy tënku lu dul ne téere yi dafay ñëw moom dalaa jox téere bi ngeen nga dem uti moom bu dee da ngeen a dëppoo ci loolu moo la jox ndigal li nga xam ne nag moom la lislaam nanguwul mooy moom dafa ñëw jàpp ne mi ngi jënd li muy jënd jàpp ne na am nga ko nga jaay ko ba pare fekk amoo ko waaye bu dee xam nga ne ko man óoma ko dama koy wuti mu ne laa d'accord naa nga wuti ko moom moo la jox ndigal ci loolu loolee moom day nekk beneen atte wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mënees na doy loo loolu ah ah jeex jeex na jeex na jeex na kon xam nga ne islam islam lu mu tere rek conséquence mi ngi ñëw ndax mi ñuy lii mu wax ne man man sax xooma ko waaye wóor na mu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu tere rek képp ku ko def da nga gis conséquence ba moo tax daal bi mu ne bul jaay loo amut loolu mi ngi noonu yàlla na yàlla dépp lu ñoo ngi jubug yonent ba wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain